taxawal yow. mais li nga est-ce que leer na. waaw yow sa waay bu nekkee ki nga ma won ci photo bi moom la xame naa ko bu baax mais nag xool ça fait un mois nii ci koñ bi day dugg gàllam génn du wax ak kenn. mais mais mais mais gannaaw lii lan la. xamoo lan la mais lii lan la xamoo lan la. non xaw ma jëf ji ñaaw di nga def sa rakk Amadou. Amadou mais Amadou sama rakk la. bu nekkoon sa rakk di nga ko def lii. sama papa moom ko dégg moo ko boy, yoon boy, baax boy, yi boy, yónni boy, assassiné boy, da boy, yaakaar boy, xamuñu boy, ban boy, xamoo boy, booy boy, booy boy, yan boy, yan boy, xamoo boy, waaw pour man aussi euh, mën boy, waxtaan mais mën na bañ boy, nekk sa kër quand même parce que boy, franchement pour mu boy, sa boy, moom daf may boy, trop bon leen nag mën na nekk mën nga xool fu la neex endroit bu la neex ñu daje fa donc ñu waxtaan. Amadou man nag su ma sañoo sama kër lañ koy defee ndax ñu mën a waxtaan ma yow mais comme que loolu dinaa wut endroit bu luxe ma invité la fa bu ko defee ñu waxtaan